votre acte du jour de ce mardi 19 mars 2024 sur la chaîne des grands événements suñu jógee fofu dañuy dem feulé ci vent d'apaisement bi nga xamanteni mo indi loi d' bi ñu voté ci assemblée nationale ba permettre à ki di Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye dal li génn fofu ci kaso ba dañuy jàppaat ñi nga xamanteni moy 11 onze commandos yi ñi di woon de la force spéciale ñomit libéré nañ leen manam 11 commandos force spéciale yi nga xamanteni dañ leen jàppandoo en même temps que ñi di Ousmane Sonko Bassirou Diomaye Faye dal di nañ leen libéré ginnaw bi ñu bénéficié ci faveur di amnistie bi di Pape Mamadou Seck ak ñeneen xamanteni moy ni fukki ko accusé yi nga xamante ni commando ak force spéciale yi nga Tay ni mën nañu japp ni ka dal recouvrer nañu li nga la liberté dembu ci lëndi bi ginnaw bi nga xamanteni affaire bi nga xamanteni mo coulé beaucoup d'encre le ko ci lamine yi ginnaw bi ñu doonee fukki individu ak ben ñu supposé won appartenir que li nga xamanteni moy état bi nga xamanteni doon force spéciale ci ginnaaw loolu nag lañ leen arrêté woon maanaam le 29 juin 2022 ba noppi daal leen envoyé ci li nga xamante ne maison d'arrêt de Rebeuss ci biir loolu nag ñi ngi xamal ni que daal ñoom daal recouvré nañu la liberté ginnaaw bi nga xamante ni voté nañu lii di loi d'amnistie bi di leen fàttiku ko ñoom ci seen bopp dañ leen accusé woon de complot contre l'autorité de l'État acte de nature à occasionner des troubles graves association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste détention de transport et de produits substances incendiaires en vue de la commission d'acte en rapport rapport en rapport avec une entreprise terroriste ci bir lol dal li nga xamanteni meun mën nañ ko xam moy justifié wu que li nga xamanteni tay mom lañu accuser won ba nopi dal di détenir ay bombes nucléaires ba nopi dal di bëgg larguer li nga xamanteni moy Sénégal jëmele ko ci ben arrêté bo xamanteni meun mën nañ ko marché jaarale ko ci marché bi nga xamanteni ni interdiroon nañ ko li di coalition yewi Askan Wi muy le 17 juin ginnaw biñu féké ci ñom li nga xamanteni ay policiers ñoo fekk ñom ben quantité bu am solo bo xamanteni ay produits la yo xamanteni c'était pour defar li di ay cocktail molotov ci bir loolu dal ci marché bobu nga xamanteni ñi ngi doon processé contre li nga xamanteni moy rejet liste candidat yi nga xamanteni ñoo waroon bokk ci législative yi du 31 juillet plus de 100 personnes yo xamanteni tay dañ leen arrêté won ci biir loolu nak gis nañu ñi nga xamanteni présenté won nañ leen comme ñi nga xamanteni moy mooy leaderu groupe bobu di inspecteur des impôts et domaines jaarale ko ci ki nga xamanteni moy mooy Pape Mamadou Seck ak ki nga xamanteni moy responsable Pastef bi nga xamanteni mo évadé won fofu ci pavillon spécial bu hôpital Aristide Le Dantec ba nopi ñu daal di ko fekk fële après ci Touba ñom dal ak yenen nitam yi nga xamanteni dal ñom ñoom lañ dippee woon force spéciale ba mettre en cause que ki nga xamanteni moy interpellé bi jaar jaarle ko ci ay jours yo xamanteni après biñ ko fekkee fofu ca Daaru Karim nekkoon fofu ca département bu Mbacké fu mu xamante ni foofu la sëriñam nekkoon ñoom daal dal dinañuy bénéficié wu ci li nga xamanteni moy loi d'amnistie bi dal dinañ leen libéré genn nañ dem seen kër ginnaw bi nga xamanteni accusation yi nga xamanteni yépp tégon nañ ko ci seen dodd en tout cas muy li nga xamanteni dal doyna war ginnaw bi nga xamanteni euh marche coalition Yewwi Askan bi waron am le 17 juin ñi fekkon ci ñom lepp lo xamanteni manam ay quantité la yu important pour defar li nga xamanteni moy ay cocktail Molotov ñom dal dal nañ leen libéré démb ci altine bi fukki fan ak